me بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله بركة وصفة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi nuyu ñëpp di leen siyaara bu baax te di leen balu xaq di leen baal di ñaan suñ borom boo luñu jéggal ñu ñëpp ci yërmandim bu ko defee ni ko suñu caméraman waxe rek na As seen émission Majalis ngeen miin ci camera bi seen mbokkum julit seen soppe imaam Sëñ Mokhtar Gueye mu di leen ko defal te mooy di leen jàngal téere bii di lax dar yi nga xam ni dafa gàtt lool waye don lu ama am solo ci kep ko xani bëgg nga xam sa diine ci warol yi nga xani mënul ñak ci yow ci farata ak sunna ak yam lay téré ñu da ci and ak seen mbokum julit imam mortala waye yalla suñu borom def tay mu am ay tuuti teunk teunk rek ay yitte ba tax bëgguñu jëlal mbir mi ñu téel ko tay rek inshallah bam bam bam bam mu del ci xam ngeen seen émission majalis ci dar yu tey jii mooy juróom-ñaareelu bind bu ngeen telo bind bi passé mo ndi ci ay ñangal yu am solo lim yu bare bare yo xamni da fay aram ci mu kallaf ndax sa njalbenu téere bi daf fay wax ni li ñeuk li ñeuk war ci mu kallaf bi war bi war war yi nak euh lamuy téré muy yépp da fay and ak mom nga xamni bu wéralee ak ngëmam xam lii yëwénal diineem liy yëwénal sa diine la boo ko xamee noonu nga war a xamee da koy yàq ndax ñooy ànd ndax jëfe ndigal ak bàyyi tere ñooy tax jaam bi am yërmande suñ borom waaye ñooy tax mu am njëggalam seen bi bu mujj nag imaam mortal andil leen ci yi nga xam ne dafay xaaraam ci mu kallaf seen ca ñu di ko tere lim ca fen ak jëw rambaaj rëy naw sa jëf ngistal iñaan di bañ nit ki ak di xool kenn jàpp ni yaa ko gën ak lu mel ni xeetu piisaate ak ngelaju nga xam dafay ndiru kokkil nit ki waaye ak di fo fo boo xam ni amul benn njariñ waaye ak di reetaanaate wala ngay xeebaate di xool nit ki xolub jéppi wala xolub boo xam ne mën na koo afoleel na xol jëm ci jàmbur bu jigen bo xamni du sa soxna wala lu koy nduru na nak di ci ay waxam waye bokk na ci it lekk alal nit ki te lekkoo ko ci tey bakanam nga xamni nang ko nax wala nga triyaane ko wala nga jaay ko dole waye lek it am ram wala ngay mbubboo diine di ca laaj alal jurul jeex ñu la ko jox ngoy def ci sa bop yoy yep imam an nako bi passé mu wax ni nag bokk na ba tey ci nga xam ne dafay xaraam ci ci mu kallaf ci fi ñuy doore wa taaxiru salaati yéexe julli an awqaatiha ba wali fa waxtu wa dafay xaraam ci mu kallaf mu déggu noddu yéexe julli ji te amul benn ngant ba waxtu wa paase lu xaram la ci mu kallaf ndax julli suñ borom daf ko wutal heure inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawxuta julli dafa nekk lu war ci way gëm yëpp waaye nag dafa am heure boo xam ne moom lañ ko appal nga xam ne loolu la suñ borom bind te mooy kitaabu mawxuta nga xam ne foo mën a nekk ba waxtu julli fekk la fa nga dégg nodd saa boo déggee noddkat bi ni allahu akbar danga war a dégg ni yàlla moo gën a màgg li nga nekk lépp lu la fekkee rek suñu borom moo gën a màgg loola kon bàyyi loola te dem yeesatu ci njàpp te dem julli ji wa taaxiru salaati yéex a julli an awqaatiha boo wati waxtu yi kon ëppante na nit ki ci nekk nekk ci lu mën a doon moo xam ngay jaay moo xam ngay jënd moo xam nga toog di waxtaan wala garam place moo xam ngay ataaya moo xam ngay tabax ba ci téer bi ñaw ba ci commerçant bi lepp lo meuna nek rek bu waxtu julli jotee nang ko bayyi té dem jaamu sa borom subhanahu wa taala ndax xamni julli biko sallallahu alayhi wasallam di jëli ci suñ borom subhanahu wa taala juróom fuk julli la waye ñewam tém ci aw xétam ak waxtaan mu waxtaan ak sayyidina Musa alayhi Salam di jabanti ci digënté borom ak musa di ci wañi bam mu des julli kon war nañu Moussa du ñu yey ni ñuy def ba du ñu yey nag mooy ñu respecté waxtu julli yi bu waxtu jotee ñu bàyyi lu ñu mën a jàpp te defi ko te xam ni julli ponk la ci lislaam asalaatu imaadu diin la salaa salaam wax julli bu fekkoon lislaam am mbaar la kene yu koy téye julli dafa bokk ci kene yi gën a dëgër daal di wax ni koo xam ne yaa ngi koy taxawal faxad aqaama diin jàppal ni mbarum l'islam yang koy taxawal diko sam sàmm waaye man tarakaha faqad am faqad anama diin koo xam ne nag sàggane na ko na nga xam bu dine mabbon ya ko mabbu tay kon lo war na ci ci ci ci ci ci ci ci ci nit ki dégg te nak sa sunu ne la ñuy téye ak dini galan ko ñun sunu tey bop dong lay don ak suñu bakkan te wir gi nu am ba di ko tal yalla suñu borom la luñu mëna nek rek manam xewlu yalla gum ñuy xéewale la kon waxtu julli yu mu ñu sant tamuy sunu njariñ nga xam ne daf ñuy jigale borom bi dañuy marale ak moom day tax ñu am yërmandeem waaye dafay raxas ci ñu ay ñaawteef ak yenu sib inna salaata tanha anil fahsaa'i wal munkar kon suñu njariñ la araam na ci mu kallaf mu dégg nodd nekk ci leneen ba waxtu woo paase ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax juróom waxtu yi ba ci nekk dafa am muxtaar am daruriya téere bi dana ko ënd ci kanam muxtaar mooy lu ñu tànn maanaam day mel ni masalan ndab lu bees loo xam ni waajal nañ ko ba noppi taajal la ko nga njëkk ci nga xam ni fekkoo ci kenn yaa ci jiitu la ca waral yëpp lépp lépp nekk ci bokkut ak ndab loo xam dañ caa xéwlu ba noppi ba mu des nga doog a ñëw ubbi ko ñaar yooyu duñ yem julli waxtu ci waxtu wi dégg nga mooy ki jëfandikoo ndab dégg nga ci bi muy yees nga xam ni kenn laalu ko waaye bo waxtee bo bàyyee bo waxtu yu passé nga do ko fekk mooy desit mooy daruriya muxtar ak daruriya nga xani bo boo ci da nga fay waaye julli wa ci waxtu ku julli ci waxtu yi moy ëpp tiyaba ki wul ci waxtu yi ku julli ci waxtu yi moy ëpp ak lèr ku wul ci waxtu yi kon nañ wat waxtu julli baaxa baax te te diko julli ci waxtu yi motax téré bi wax ni haram na ci mu di yéex julli ba waxtu wa passé wa takhiru salati ak yéex julli an awqatiha bu faat waxtu batay, ci daganul mu wara waraa xillu du dagan la xoo ci mukallaf kallaf fasikhin muy andak ab say say wala du dagan mujalasatuhu muy toog ak mom sax diko wala muy nangou ke diko ko li gayri daruratin ci dudul lor dafa aram ci mukallaf rawatina ab julit l'islam dafa bëgg nga tànn say àndandoo doon àndandoo yoo xam ne dañuy doon ñu am yar am teggin di du lislaam ba seeni bokk ak ñu dëkkal ñëpp xam ko waaye boo fekkee koo xam ni lu fi réer xel yi dem ci moom wax ñaaw duñ duñu dégg xel yi dem ci moom tojaay duñ dégg xel dem ci moom nga xam ni saa boo ko rombee ci mbedd mi wala nga fekk ko ci bërëb doo ko nawloo ndax melokaanam ak waxinam ak di soppiku ci loo xam ni doonu lu suñ borom gërëm kooku dafa xaraam ci jullit bi muy ànd ak moom ak di xaritoog moom ak di ko fréquenté mi ngi mel ni tey nga nangu tey jii ab sàcc ñëw di ñëw sa kër fi ne bu yàggee léegi xeli ñaaw ci yow ndax bu fa ñëwee jël ñëwaat jël ñu ne yow lay seeti bu yàggee ñu yàgg moom da di kompaloo kon loolu lu lu lu jar a bàyyi xel la te andando dafa don lu am solo ci ci ci doomu aadama bi nga xamni koku defal rek waron ko tan waron ko set bu baakha a bah ndax cheikh Abdoulaye mbake dafa wax ni ñaar buñu ñu àndee ren ba déwén bu dee dëgg la and ba mu don ko bax ak ko xamni ji dafa dafa safaanu neena buñu bu ren ba déwén te ku bon ko bayul mbonam nga fekk ci ku baax wala ku baax gi bàyyiwul mbaax ngi fekk ci ku bon gi ànd ba du dëgg ab àndandoo saa bu amee rek wàllante jikko day daal di am soppat nay xalaat day daal di am moo tax nit ki bëgg a baax war a xool ñi muy àndal ñi muy toogal ñi muy jotaayoon sëñ Tuubaa mi ngi la koy jàngal ci na jox daay xaaj di wax ne wayn arat wayn isa uh, arata an uh, soxba mm, bul ànd ak za safahin ku dese koo xam ni xel mi matul xel mi rafetul bul ànd ku iñaan bul ànd ak ku bëri xememteef wala tu saaxib in arata soxba za safain aw xasadin aw ba daal di wax ni bul toog ku dul koo xam ni boo toogee moom dana dolli dina dolli sa diine waaye dina dolli sa xel ci loo xam ne dina tax nga mën a jariñu adduna te dund dund gu teey waaye dina la jariñ alaxira kon ba tey bokk na ci téere bi jàngale daguñul ci mu kàllaf muy ànd ak ab saay-saay wala muy toog ak moom ci lu dul lor situation oblige nga xamni ne mën mënul ñàkk fii yëpp dafa tawta ben togay rek fi nek faaw ngeen daje fa nga xamni ko fa romb xamni mom euh manam sakku toga mom way lu mën ta ñak la ma ngeen bon bok auto fu ngeen jëm lu mën ta ñak lu waaye amaa nag jug di ko seeti mbaa ni ko ba nga di ko ubbil sa bop bu di séti mom moom dafa arab ñu bayyi ci xel bu baax baax batay mu ni wala lu bu bul sak rida al maxluuqiina ngërëmal mbindeef yi bi soxteel xaalix ci sànj ak aji bind ji ci merum yàlla bul sàkk mukk lu neex nit ki ba tax nga jëlee ci merum yàlla suñ borom ci wax ak ci jëf koy wax la koy wax na yàlla rek tax lépp loo koy mën a dox li ngeen séq ko na doon lu suñu borom gërëm waaye pañoxte àdduna àdduna bu mu la dik kese ba mu tax nga jënde ko merom merom merom yàlla ndax xadis la ci alquran euh, suñ borom wax waaye mu doon xadis it mu xaala allahu subhaana wallahu wa rasuluhu axaqu ay yurduhu in kaanu muminin wax ni yàlla suñ borom mu tedd mi ak yonente bi sallallahu ñoom ñoo gën a yeyoo ngeen sàkku seen ngërëm maanaam yàlla ak yonente bi booy sakk ngërëm sàkkul ngërëmal yàlla sàkkul ngërëmal yonente bi in kaanu muminin bu fekkee gëm ngeen ne yàlla moo leen sàkk te moo leen moom bu fekkee gëm ngeen ni rasulullahi la yebal ci yéen te moom suñ borom méngoo seeni njariñ ak seeni lor an nafxu wa durru min arrahmaani laysa min al bidaani wa sulaani nga xam ni njariñ ak lor ci loxol yalla kep la nek nekul ci loxo ñu ñuul ñi waye nekul ci loxo ñu ñu ñu weex ñi an nafa wa duru min al jabbaari laysa min al abraari wal asrar njariñ ak lor ci loxo yalla la nek waye nekul ci ñu bax ñi nekul ci ñu bon ñi kon nit da ngay gëm suñ borom wakirlu ci mom xamni sa wërsek moko mengo kudul mom mengo wul sa wërsek bu ko defé lepp lay wax yalla kepay tax jéego yoy sekk di ko doxalante ak nit suñ borom kep nga ci nga ci nga ci nga ci jital waye kenn du la ci lo xamni dang kay nga manam bëggul suñ borom wala meram sa su nga gis ko top ab musicien wala top mbarum lamb surtout politicien ñu téye la ap ab ab ab ab jotay waxtu yu bare bare bare nga faat waxtu julli yu bare bare bare bare bare di taccio ko yuxu ngir lo yaakar ci mo lo lay am ci mom ta baye sun borom mi la bind bind ko nga xamni man nga caa am ngeureumam mom waye dang ci am meram meram sun borom te ngeureumal nit ki du jeriñ morom nitam dara bu fekke ni merum yalla da ca nek ni ko suñ tubaa ni ñepp buñu maase won di la dila di la wax wax ji gëna bon di la ëmbal ak kiñaan ci xol te fekk suñu borom nam ci yow sa ak tawfiixam kenn mënu ci yow dara waaye ñëpp bu ñu dajale woon ngir bëgg laa jëriñ wala ala naxeekal xalqu ci ijtama lam yaqdiru alayhi awdi in mana bu ñëpp maasé bëgg laa jëriñ di la financé di la di la wutal yoon lu ne ñu daj ko ci yow te suñ borom namul loolee kenn mën ta fexe ba du am kon nag képp koo xam ni yaa ngi jëflanteeg moom na nga jiital sa digganteeg moom suñ borom subhanahu wa taala na nga ragal yàlla ci sa ànd ak mom waye bu la kenn yendal fenn mbaa mu fanaanal la fenn mbaa mu wax loola lenn mbaa mu jif loola lenn loo xam ne moom intérêt ma nga ca waye merom suñu borom ma nga ca dal sa kaw kon lolu nang ko maytu bu baax a baax a baax a baax wax ni la taata bul top li makhluqin ñeel kuñu bind fi ma'siyatil khaliqi ci mooy aji bind ji bul topp ku bind ba mooy ko bind ak ki la bind yow dégg nga wax bi ba tey mi ngi ci daganul mu ni wala yaxillu lahu du dagan ci mu kàllaf an yafaala fialan muy jëf jenn jëf jum mën a doon xatta yaalama mbeta mu xam xukumallaahi attab yàlla fii ca jëf ja manam dagu ci benn mukallaf ngay jëf jëf ju mëna doon te xamoo jëf ji du ci yàlla suñ borom atté nga ne ko jànguma mën la wayes alul ulama wayes alul na nga laaj alul ulama way xam yi bu dee borom bo laaj ñu xam fas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun la alquran wax da ngeen laaj ñi jàng bu ngeen xamut waaye du yoon mu di talax talax rek lu ne nga dugg ci lu ne nga def ko te xamoo li ci suñ borom digle ak lu mu ci tere xamoo lu ciy danger ak loo xam ne mën nga koo jëfandikoo fi ne julli rek saa su yaa ngi koy def war ngaa xam farata yi xam sunna yi war ngaa xam ni koy yàq ak boo ko yàqee ni ni ngay ni nga koy defaree waaye fi ne ñu ëpp ci ñun bu ñu kàbbaroon julli goo xam dañoo bere ñum képp maanaam bu ñu juumee ci julli gi yàq ca moo xam ñu dolli wala ñu wàññi ca. amuñu mel menn pexe bu dul sëlmal julli googu rek tas julli googu jul sosaat beneen julli te loolu jam-jam bu rëy la ci bépp mu kallaf te suñ borom wutal na ay yoon yoo xam ni téere bi dina ko jàngale dina ci ñëw li wax su jootu sax wi saa boo jumee ci julli gi julli gi doo ko yàq da ngay continuer ba julli ga jeex moo wax na nga koy defaree nga defaree ko fa dégg nga wax bi nga xam ne saa su ne solution dafay am dafay am dafay am ci julli gi moo xam yow képp yaay julli wala nga top ci ginaaw imam wala nga am ñoy jité dégg l'islam da lay top ba ni la ana fa yàgg ci bir jul sax wax wax la nga nga man dafay dagan ñaata rak la am ñun la nangami rak nga am dégg nga nga jëfandikoo na yangi ba génn ci julli ga waaye yaa ngi julli te xamo farata yi xamo sunna yi xamoo lu ko yàq xamo lu ko defar yaa ngi te xamo farata yi xamo lu ko xamo lu ko defar aj makka yaa saraxe yaa ngi nat yaa ngi nat azaka xamoo ñu ngi ko war a jox xamoo kooku warta jox te yooyu yëpp jullit bi daf ko war a xam daf ko war a xam boo demee ci tasawudu subaat sëñ bi di nettali wax imaamu Saafi'i ja ci bi mu toggee ci jàkka ji nee na benn waay daal di ñëw daal di kàbbar liqaam kàbbar nee na di julli julli farata jàng faatiha bu mat sëkk aku sar ruko ruko yu mat sujud-sujud yu mat sëkk ànd ak yemmoo ak dal manam état bu mu ci tol rek dokay def nim ko wara a julu gu rafet nga xam nga nan ki mom borom xam-xam piir moy julli ndax julu gu rafet gu teggu yoon neena na bi mu jullee ba ni julli gu rafet gi mu gi rafet am ci nga xam ñu ba xam jullem gi maanaam gis nañu lépp mat na waaye ñu koy laaj ba xam lan moo ciy farata ak lañ moo ciy sunna amma daxe min al faraa'idi wa ma daxe min ñu ne ko nag bëgg nañoo xam julli gi nga julli ñaata farata am ak lan moo ciy farata ñaata sunna la am ak yan moo ciy sunna hal hiya mafrudatun julli gi sax moom ci jëm boppam lu ñu farataal la aw man duubatan aw sunnatun wala dañ koo sopp wala wala wala wala wala wala sunna la lu mu leen wax falam yakun yaarifu mimma su'ila shay'an li ngeen laaj day wax dëgg yàlla xaw ma ci dara li ma ca xam daal mooy afaalu ayna naasi yaabuduna kama raayta naasi yafaaluna damay gis gaa yi julli rek may julli man daal gis naa gaa yi di julli rek di këpp këpp rek siggi ma xool ba gis niñ koy defe rek ma koy defe noonu waaye wax dëgg yàlla li ngeen laaj ñi xaw ma ci dara fekk ña ko doon laaj ay borom xam-xam lañ dégg ci mu wax ni nag ñenn ci borom xam-xam dal di wax ni jullem gi kenn du ko nangu julli gi kenn du ko nangu ndax xamul li ci suñu borom faratal ak lim ci sunnal bu leen ba yag mu yaq xamul num koy defare kon julli gi kenn du nangu ngant li ko ngant li nga xam moko teye ba jangi ko it duñ ko ko pardonné duñ ko ko baal duñ ko jégal ndax aduna kep la fi ne da ngay gis koo ba am master master 2 ba master yu gëna kawé kawe diplôme yu bax té fatiha bu jup mënu sar wu jup yegg mënu xamul jull lu ci farata ak lu ci sunna té amna diplôme yu kawe di fayé ko salaire bu bu bare bare bare gis ko xani mete métier maçon mi ni metté nga yenn ay birig dina nga dugg ci maîtriser nako ba am ci ay lidiasa di gagné sànc yu dul jeex gis tailleur bi def formation tailleur ba am ci ay diplôme lu ñaw man jafé jafe mu man la ko ñawal nga koy dégg fu né te xamul ay faratam dé nga wax bi et cetera et cetera ci yu bari bari yo xam yaatuna mu melni ni yow sa àdduna lijjanti nga ba xam likoy jagal ak fi ngay jaar waye faratay suñ borom gi nga xamne yow mom la gal sa kaw té moy ndigalam té mom képp mo day top ci bammel mo la fay jariñ yit nga ko ba xamoo ci dara yaangi def ni rek ci kaw waye xamul ni ci bir te loo gis dafa am fu ñuy wax ni nga koy tali rek da ci am tali bi da am gis nga da ngay am yàgg am doo daan nga xam da nga war a teggi sa tànk boo fa àggee wax bi ak ak ak virage yoo xam ne boo àggee dafa am eh, noo noo war a dawale daamara ji nga yor stop yi danga ko war a xam xaw ma foo rouge rek boo fa àggee fenn mu mu rouge nga taxaw bu verte nga jàll ni mu amee ci tali bi noonu la amee ci ndigalu suñu borom bi boo demee ci aj màkka am dem ci julli dem ci wor da ci am de nga wax bi julli dafa am waxtu yo xamne manam manam bokuy julli fi na day am ba ci waxtu yi jurom julli da lay wax ni budé rakay fajar ñaar rakay fajar mo mo wara gëna gën gudd yu tesbar yu tesbar mo wara gëna gudd yu takusan nga wax bi takusan mooy gëna timis timis dafa dafa dafa war a gàtt bu dee gee digg doomu yoy yëpp dégg nga dang nga ciy jël misal lolu nak ko wara xam top aduna kep ak say bëgg-bëgg ba tax xamoo li suñu borom gal ci sa kaw wala ma yi wax ni ngant gogu ngant lolo yalla suñu borom du ko jéggal kenn nit du ko pardonné ci ko xam ndax nga dem jangi ko de nga wax bi motax ñu wax ni biñ ko laaje mu ni xamul julli gi lu farata ak lu ci sunna lu ko yaq lu ko defar ñu ko sa julli gi duñ ko nangu ngant li la teyit ba jëmako dees du ko nakkoon dees dees du ko nangul wa usruhu lan lan lan lan lan yuqbala mhm. yaakaar naa waxtu yi des des na tuute dégg nga mu ni kon boo xamul na nga na nga nga na laaj borom xam-xam yi eh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu teg la ci yoon dégg nga waaye Sëriñ Tuubaa daa da caa wax ci bopp ni xultu wa qad arama rabbuna ala mukallafin ala kulli mukallafin fiha alama nuqira dégg dafa wax ni man Sëñ Tuubaa maani maani wat naa ci yàlla ne yàlla suñu borom araamal na ci bépp mu kallaf muy jëf jëf ju mën a doon te xamul jëf jëf fu mu tego xamul farata la xamul sunna la xamul ko koy yàq xamul lu koy def dafa dafa araam fii adam bi xayri bi xayri anam ko bi sarxi fii wetan nasu dalilun xatixi daal di wax ni koo xam ne réer na ay farataam ci jawhar man kaana jaahilan bi farrihi walam yasal fa nafsahu abada wa zalam ku réer ay farataam te laaju ko tooñ na boppam tooñ gu wér ndax la muy jëf yëpp boo may tuula xabaa an mansuur lay doon pënd bu wisaaroo rek du ko jëriñ dara dégg nga moo tax ndax dër yi wax ni walaay xelul du dagan ci mu kallaf an yafaala fi'lan muy jëf-jëf ju mën a doon xataa yaalam métu ma xam xukmallaahi attab yàlla fii ca jëf ja bu xamul waaye saral alama na laaj borom xam-xam bu fekkee toogoo ci ban bi ñu jàngal la boo laajee ki jàng mu wax la daanaka yéen a yem rek dégg nga ki jàng ak kii laaj ñoo yem dafa am maanaam ci jàkka ji benn waliyu ak benn jaamakatu yàlla ñu ne ci jàkk ji ñoom ñaar nee nañu Seydina lii la seytaane mi ngi ci biir bëgg a dugg ci jàkka ji yàq julli kii julli dégg nga wax bi waaye yaa ngi naafile rek moom rakk bu daanu mu jël beneen waliyu moom mi ngi tëdd di nelaw di xarak waaye seytaane bu yootee ba bëgg dugg pour jaxase xel mi yàq julli gi kii lo daal di xarang bu xarangee wala wi day tit daw génnaat de nga wax bi manam nga xamni ki kii julleem gi ak rakkaam yi ak tareem gi dakul setan waye nelaw yi kii ak xarang gi mokay dak de nga wax bi biñ ko laajee mom lutax tax ki di julli dawoo ko dégg nga bi wali wi yewé mok laaj man may nelo suma xarañ ngeen ngay daw man nga dama xamni suma duggé su julli gi deng di nga yeewu te boo yeewoo di nga ko wax ni ko koy defaree di ko tegaat ci yoon dégg nga moo tax xam-xam dafa am sol mm-hmm. nit ki li ngay jëfandikoo sa diggante suñu borom lu mu gàtt gat da ko war a maîtriser hmm? ñu bàyyi ci xel bu baax a baax waxtu yi dégg nga moo tax daganul ci mu kàllaf muy jëf-jëf ju mën a doon te xamul lu ci yàlla atte boo xamul na nga laaj borom xam-xam yi ba tey ni wa yaxtadi bil muttabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te it na ngay roy ci khulafa u rashiduna yi mooy ñi nga xamni ni dañoo topp sunnas muhammad sallallahu alayhi yàlla nako yalla yàlla di ak mucc khulafa al mahdiyun ba jamono bi kep ko xamni am nga xam-xam tey jëfe xam-xamam rek tey jëmmal islam ci ñooñ nga bok boy roy na nga roy ci ñooña allazina ñoy gaay nga xamni yadulluna danañ tektalo ala taatillaahi ci topp yàlla waaye wa yuaziruna danañu wattuloo min itibaa'i saytaani ci topp saytaani mooy ñi nga xam ne boo leen dégloo jox leen nopp danañ la tegtal fi ngay jaar ba topp yàlla suñ waaye danañ la wattandikuloo yoon wi nga xam ni boo ko boo ko toppee yoonu saytaani képp la te musiba rek nga ci jële kon dañuy yemale foofu mbindub juróom ñaareelu jotaay bi ci majalis incha allah rabbi di leen gërëm bu baax te di leen sant ci teelu gi di ñaan suñu borom defal nu ak dégg ak ak topp di leen jox dig daje incha allah rabbi ba beneen altine ak seen mbokk imaam sëñ Mortalo dañ ko fay nekkaloon tey rek xam naa sax bu ñëwee dina gën a indi ay leeral ci ci ci ci bindu tay bi ci kàttanu suñu borom jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bismillahi rahmani rahim. عما يتساءلون